sëriñ bi le ak mboolem ñi jëkkoon a ngab ci moom asal duñu maasum kenn ñoo gën ku nekk ñoom sëriñ bi le ak mboolem ñi jëkkoon a ngab ci moom asal duñu maasum kenn ñoo gën ku nekk ñoom ku def ibra faal ak seex ak ibra faati ak sëriñ ma dundum def kem dafay daw lu dox te juum ku def ibra saar ak aadama kii ma baabu gi moroomit dadib dof rekk buy say dañoo ko tiim ku def abdurahmaan it moroom ak ma sàmba joo ba kii sirelu yaaram bi moo mata def ci buum ku wax lëf ci falloo ki basiiroo ki mustafa lu dul jàmm ku yiw al ku tuubal te far ni xiim na ngay boole doomam yépp ak ñépp tagg yow akay sant mbaa ngay noppi sab dénk ngoogu doom ku wax la ci saa jëmm ak balla faali jëng lu dul ñoo ko gëm seenub sëriñ yow dalal di miim te moona Suleymaan it ku wax lëf ci ay mbiram lu dul moo ko sellub yar xamul lëf ci ay soloom sëriñ madu laamin mbay ku waxalëf ci moom itam lu dul moo ko jàpp njaaburam réere ne jikkoom sëriñ paate am mar képp koo xam ni wax na lëf ci moom it lu dul aw yiw xamul booba ab dayoom sëriñ madu laamin gay ku jóg wax ci lenn lëf lu dul moo ko dis gor di jullit réere nay meloom sëriñ Madu Gay jëmmoo itam bu ca wax lu dul ngor ak diine ak saytu njabootam ci ab loxoom te moona Madul Mbay Njaay itam bu ca wax lu dul rafet njortu cib sangam akay ween ak sagoom muriti yépp seen nguute aw yiw la rekk ngir lañuy def sëriñ bee tax te jeena ci yàlla moom te yàlla na mu may ak jee ci moom ak desum ngërëm akuk cant ak ndollem lu tax ñépp bokk luum waxal ci sëriñ Tuubaa lu yéemu lu sedd xol te koo dégg ci gaayam ni kooku amul moroom sëriñ bi amul kem ñéppi dongooma moo fi gën mbiram mii ngi tukkee nag fa yàlla ki mat boroom fabale yow sa mbir jox ban ba mbaa kenn ci wu nitam te may ñépp fawub yar di sëgg ka dam mi wóom mayal ndaw te may góor ak jigéen ak ku nekk ab yar ak kersa bul fiiree ka gaañee ka dox di boom ku am laf bu dul def ndànk léegi mu gaañu nit defal mag mu dul dóoree ka jox kenn benn góom te yal na nu am nag nun ci barkeb sëriñ bi ak ci barkam ñu ñam aw fan wu gudd ki koomi koom te yal na nu am ban baa ci gaayam ñoom nu nag te far bég ci nun fawwit nu far sant bég ci ñoom te yal na nu am ban baa ci gaayam ñoom nu nag te far bég ci nun fawwit nu far sant bég ci ñoom siyaare si naa laa ban ba ngir bëgg a jébbulu bu wér nag ci yow ngir yàlla ak bëgg a sébbulu siyaare si naa laa ban ba ngir bëgg a jébbulu bu wér nag ci yow ngir yàlla ak bëgg a sébbulu na taw bi ñëw ak yërmaande sébbulu jot na nag na suuf sépp tooy ak xol yi xipp nu xëy falu danoo bëgg am ren ji sa cant gu rëy gu wér te jébbal la junni junni yow daala am solo dangay wéy te yow doo dëpp moo tax ku bëgg sax ci yow dëpp rekk kay gémmiñam noo ngi koy felu musal nu te may nuy tànk daaral nu kan yit falang lu nu jaaxal yokk nu cant nuy jalu xabal jàmm jópp ak doole ak suturaak yiw dugal ko ci nun nuy sant kay gonta kay jëlu xabal sag cofeel ak daara ak darajaaku yiw saxal fi nu nag ndollente may nu fal ak falu waxal yàlla muy xittee ka dotti ba fépp taa nu dolli ku ay baykat te dolli ku ñuy falu na it te gi rëy yóbbal bi rëy fit wi yéemu rëy te xel mi rafet wéttal wi mat sëkk nuy jalu yaram wi na wér wërsëg wi yaafan wi guddutal te jëf ji rafet mbooloo mi yokku nu sanculu na may yépp ñëw mooy yépp teggi nu nuy gërëm yawit ngay gërëm nuy dem di dikk ka yóbbulu musal nu ci yees ak ëppal ak yeex ak yébbulu te def nu ñu xër ñuy teel a jag teel a sébbulu musal nu ci yees ak ëppal ak yeex ak yébbulu te def nu ñu xër ñuy teel a jag teel a sébbulu yokku la gëm naataange joo xam ne dootu dañ te yokku fanam dolli njabootam fegal ko lor mayal ku la gëm naataange joo xam ne dootu dañ te yokku fanam dolli njabootam fegal ko lor te leeral sa digg ak moom itam ba mu waaru bég nga ubbil ko buntub cant muy sam fa kay sawar ñi lay sopp may leenu jub ak ngërëm ak alal te faj lu ñu bañ faj seeni aaju ñu mokku xir te dollil ñi lay santug cofeel ak njariñ lu wér te yombal lu ñuy wut lépp far seeni mer mu far te mboolem ñi lay jox ñépp jox leeni may yu rëy yu ànd ak ngëneel ak barke ak sa ngërëm lu wér ñi lay jox di tagg ak gaa yi topp ci yow di way ba max leeni ndég yoo xam ni ëpp na xel yi far ñi lay gëm a koy doyloo ba ngëp ci ñu ngëp ci yow ñu yoo leeni pal may leeni sàll ñu waaru war fu nit nekk ngir yow ak sa barke defar ko yow te dal di seral guy yub xolam def ko ab gawar fulal ñépp tooyal xol yi xépp te xëpp nuy ngënee la ki yërmaande ki ndolleen fegal mu gar fegal mu gar ak ngaañam te nooyal ko nepp nag fi nun gépp gar nay mel fi nun ni ku nee ku dër bu lor jëm ci nun sax lépp luy lor bu buuratee na mooy sori ñépp ak nun nagu mucc faf nu wër bu lor jëm ci nun sax lépp luy lor bu buuratee na mooy sori ñépp ak nun nagu mucc faf nu wër saxal nu ci néegub cant boo fete ñuy ngërëm taxat de ko mucc ak yiw nu raw ay te jépp lor saxal nu ci néegub cant boo fete ñuy ngërëm taxat de ko mucc ak yiw nu raw ay te jépp lor sëriñ bi na waamee cant ak barke dal di ñëw ba gàncax gi naat ak xol yi doo fekke aw maral sa jëmm ji lee tax ay du ñëw yàlla yow la rus rusul ku la mooy yow dongatee na ci sumbugal li lee tax manaa yar nang fi yàgg te saw yaram di sedd ak wér ngay may ndigal ñépp a koy dëgal bu lor nee baret ngir bëgg dikk nga dal di jañ njariñ lu fasit ngir bëgg noo raw nga gor ko fil njariñ dootu raw lor dootu jot kenn lii kërëy giñal nga nu bon bon yépp fa bett noo ci pal wutal nga nu ndombak tànk koo séena kub palam amul ci sa ñuñ koo xam ni kii amulum dogal wutal nga nu ndombak tànk koo séena kub palam amul ci sa ñuñ koo xam ni kii amulub dogal sëriñ nga bu gën mboolem sëriñ sépp tey fa képp jullit ñépp paasal nooti tey joowa kay dawal danaa boole tuub ak cant ngir boole koo ma war ku yor may yorug muy sant tuuba ko war asal danaa joowalit mboolem jullit ñi fa yow mi am nu faj lorte am yërmaande sépp dina séppilin maral wi na dañ mboolem ku wopp na dal di wér ku ñàkk na am koo xam ni suufi na yëkkatil ñu nekk ci kaw suuf sépp yow la ci yàlla yëg te yow la ci àndal yow la ci xoola kay waxal waral nu ko aslëf ndax mu ubbil mu bunti mbég te tëj wunti lor ak wunti mooy dàq aw maral waral nu ko aslëf ndax mu ubbil nu wunti mbég te tëj wunti lor ak wunti mooy dàq aw maral musal nga nu biir ak biti fal nga nu door a dem sa dem gii du lor jaajëf ko wàcc añee ca des bégal jërëjëf sa der rafet na sa tuuma set wéel nag ca firdaw seeki cant ni far galas defar nga sa digg ak yàlla ak yonnenam ba yow defar nga sa digg ak ñépp gën ñépp xëy ni mes bi ngay dem lu dul dem jëkkatul mbay mi lépp a ñor ni xom mu xomas góobee ca des réera bon du tus ku réeree tawat dem gi nga dem ndeka xam la xew du wax lëf lu dul muñ sant yàlla ci leen ci mus ku togg ba sottal sax lu muy defatee ka wax lu dul yàq yaa sottal bu yàgg si fal te fas jaat dina ji sottee sa mbir sotti lépp jub na ngay def ba doo jóg seeti àjjana moo fi sës gërëm yàlla ak yonnen ba rekkan war ci yow ku santul ci yow yonnen ba ak yàlla mat ni mbas da ngay bay ba ndaw ñëw woola wàcce la jox la ndam ñu wàcce la déppub coono yow daa la wàccu sax di fàttalikub coonoo ki nguur ak ki sant des ci yow lépp loo daa mus lu dootoo ko dégg bis musal mu ci dunyaa ji nu nekk ba bis ba nuy nuyoo teeki cant ak mbég nga boole nu may lu fés ba bis ba nga nuy gis yow nu gis la nga reenu ree bu kenn gis ci nun ñii wenn ay bu ko wenn gis ubal sunu digg ak ñépp faw ba kenn du ñëw taw bi sa digg ak ñun du yël nu ba kenn du des ubal sunu digg ak ñépp faw ba kenn du ñëw taw bi sa digg ak ñun du yël nu ba kenn du des gërëm naa la yaa xutbal waraa mbàkke ndaxte man ba woo maa ki doktoor ak ku léegi ñu kenn xamul gërëm naa la yaa xutbal waraa mbàkke ndaxte man ba woo maa ki doktoor ak ku léegi ñu kenn xamul dangaa jàpp saa raggi xol ak saa yaram di faj akay mocc baataag gooki bon bon te kenn yëgul te dàkkul nga mag dee far samay ragg fekk ko nag te guddal sama fan may ma xiiwal akuk jubal saxal nga fi man xiiwal saxal ma ci sépp saa ci cant ak ngërëm man ñii ba àjjana yaa ma fal musal nga ma ci bon bon musal nga ma ci tawat te nëbbal nga mag bon gog bu feeñan doyu la jël te boole nga maa kat lëf lu may sàmm kay bégal ba nee faa ma firdaw seeki may donga ngi dugal te boole nga maagas lëf lu may sàmm kay bégal ba nee fi ma firdawsee ki may dong a ngi dugal dangaa jàpp saa kër gi defar jàpp gee jagal ma far jag samay kër jag lu dul sant kay desul ma sàkkooti ndolleen ndax te doo jeele lenn lëf te bëggoo lu dul kay laaja kay am te doy lewul faral dolli mag muccëg wér ak wër sa gëngërëm te yokkal ma saafan wii te def ma ku lay jëfal ku lay dox di gonlul faw yow mii ak ay xëyal ni ngay dox di gonlul Mustafa faw ak ay xëyal doxal saa digg ak waxti te kiy jinne ak njabar bu nekk ak lu bon lépp ak ku bon man nga lii defal njëgam yeewu naa mbaa may nelaw dénk naa la man samay mbir lor ak luy lor balaa jëm ci man fegal njëgam yeewu naa mbaa may nelaw dénk naa la man samay mbir lor ak luy lor balaa jëm ci man fegal sëriñ baa ngi yónnee ndaw ci nun boole kooki mbit bu ndaw loola yegsee ñépp ñeen waaru bit liggéeyewu nooti si lëf lu dul xaaru gan ñu gën ñu ànd ak ngëneel ak yërmande yàlla jépp nag ganug yàlla day wàcce njariñ dàq lor mu dem du maasum ganug saytaane yal na ko yàlla fekk ku ñëw faj sa lor yët lay njariñ sax fi yow di jub du maasum ka ñëw fab say njariñ xañ la jàmm teg soril nañu nug ceytaane faw wag lu koy xisaw fegal nañu nug ràgg ak jibar lépp faf na jag bu saytaane nee ñokket ñu fil ko mu moy nu nun bu yërmaande nee ñokket ñu jañ ci sunuy wanag bu saytaane nee ñokket ñu fil ko mu moy nu nun bu yërmaande nee ñokket ñu jañ ci sunuy wanag sëriñ beene fii moo nekk dépp te moo nu yor lu jàng mooma loo gis mooma moo teenu diglu ko sëriñ beene fii moo nekk fépp te moonu yor lu jàng mooma loo gis mooma moo teenu diglu ko saxaaray ndigal du ñëw fa gaaram ba moonu war di digloo ko muñ tey sant yàlla ba dugg ko ku dugg ndigal jot gaaya duggul te teel a xëy ndigal yow ndigal yàkkamti day xaña ndam ba ko samay mbir a ngi saa jëmm ngi sama lépp ngi ma jébbal sëriñ bi yàlla na fab lépp saytu ko te yàlla na nu baaxal ñan nu dàkkul nu lépp lëf lu baaxul fegal nu jëm ci loo xam ni tan nu ko te yal na nu xëy fees ak lu ñépp ni ngéej a am te fees ak cofeel ak gëm gudul dañ du rekkiku ne naa ca samag def ak samag bàyyi ak samag bañ ak sama bëgg ak bopp ngir yàlla dénk ko def ak bàyyi ak bëgg ak bañ ak lu ma man di def na tukkee ci moom ak pàggu téefam nu ànd ko lu may def na def loo xam ni moo ma ca may ndigal lu may sànni nay loo xam ni moo ma ni sànni ko bu lëf ne ci man mukkit lu dul lu mu def ci man te naa sax ci mboolem lépp loo xam ni saf na ko bu lëf jëm ci man mukkit lu dul loo gërëm bu wér bu may jëm ci seen nas njëf lu dul jëf ju ràññiku tiraanga nanuy wër kapp ak mucc faww nag toraxte nanuy teggee ka dand nu dand ko dugal naa sama nit ñépp ak sama jëmm ji ci gaalug sëriñ tuubaa gi yow yàlla seere ko musal nu musal mboolem sunu nit ci jépp lor te def nu ñu lay dégloo ka santa ka dolliku ku nuy bëggatee yen wenn ay bu ko yëkkatee na këpp ku ci boppam yam ca kepp mu rëcc ko te kuy fexe cant ak mbég ci nun yal na dal di bég te gis lu ko dolli cant ak mbég ba soññi ko li feeñal ni nëbboo ngoogu xam nga lu nekk yow ku dof rekk dal koy def ku wax it nga jajji ko ku def na nga gis kuy bëgg a def na nga nit ba xam ku wax na nga xam faw wit ku noppi nga diglu ko ku def na nga gis kuy bëgg a def na nga nit ba xam ku wax na nga xam faw wit ku noppi nga diglu ko danoo war a booloo faf xarug dee te jox sëriñ bu mag bi li nii taaxee ki jëndi wataaki fas mu jëndal mu ciy taax ak wataaki fas ak njariñ ca àjjana lii gën nay ci say yëf te doo fi des ku yeewu dafay def ca si yëfam joxe dal di wéy bu yeggee fa ñuy jëm dal di boole yëfam ni cas ku dof nag dafay boole yëfam yépp yor bu wér ba xëy dee yëfam des fii mu dem du fa fekk tus mayul gaa yi tey ngir gaa yi tey duñu yokku nit dañuy yàq sab dox ak sa yëf dellu gotti mbas ñu nekk fi suuf ak gaa ñu nekk ci taaxi kaw fi suuf si lañuy xal seeda mujj ni cëpp bis ku nekk ca kaw tuubal te jekk fi suuf si yow fi suuf si la mbooloo mépp jëm si ku daanu rus liggéeyal ba am loo xam ne jar nay wataaki fas te jar jongamaa kii taaxi kaw joxe ñépp gis danaa sàkku man ndimmal ba am ñàkk lépp lëf te sàkkooti ndimmal nag ba faf joxe lépp des sëriñ bi sarax nu ndoole ndax nu defal la lëf lu rëy li nu fas am doole rek kay waral mu fés sëriñ bi sarax nu ndoole ndax nu defal la lëf lu rëy li nu fas am doole rek kay waral mu fés fulal sunu gëm fàggul nu dooleeku fit wu rëy musal nu te may nu pal gu ñuy fedd leeke wis nawet bi nu jëm def kom nawet bu rafet bu jub na lépp ni gàññ ak jàmm nuy sepp leeka fas reen ak dugub ak sëb na nangu te jàmm am ku nekk juboo kub sangam ak waa këram di mos reen ak dugub ak sëb na nangu te jàmm am ku nekk juboo kub sangam ak waa këram di mos sëriñ bi may nga nu nu xam mbakkete may nga nu nu am may nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm sëriñ bi may nga nu nu xam mbakkete may nga nu nu am may nu nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm xamle nga lépp luy ndigal ak lépp lëf lu dul ndigal lu dul def ak bàyyi desul koo seeru xam na lëf te am xam-xam bi xëpp nga nu ko alal ji xëpp nga nu ko murit bu nekk yee nga ko te duy xolam baa kii kam kuy wax nga fas ne yegg na buy jëf nga fas ne alku na wax yi rafet na yéemu na te jëf yi bon di mu dinu bu lëf desul lu dul di wax ñépp di waj wajee ka wax te kenn du def ci la mu wax dara li lee ñàkk xoram koo seeru tey xam nag murit tey dox di waxtaan ak murit te du defit jëfi murit tee nga ne accam te ni cam koo seeru day digle joxe te yor yëfam bañ koo joxe kuy dox di santaan ak joxe te joxewul bàyyil mbiram li tax murit yi bon bari sëriñ si bon dañoo bari sëriñ bu dencee lu bari du mën a tee yóbboo ka dem sëriñ bu dëddu àddina murit ba dëddu àddina waxtu wu jubloo àddina murit ba dëddu ko ndaxam ku bay areenam ba mu ñor mu jënde kow fasam di war di nuru gër mi ci nga war koo kële sànk na mbayam moyul sa nawle buy liggéey yow ngay nelaw ba mu liggéey ba noppi nag nga fab liggéey boobale far ne ko pelam njëgam liggéey yoo ku liggéey fexee la fab la mu liggéey joxe ko ndax boodu liggéey tey joxe dee fi la yërëm awal ca ngir ma woote ca kuuy si fekk nga ne ca kuuy si wul dégg la ca kuuy si dawoo nga jël ndamam ku bëgg a jot gaa yi rawoon te bëgg a gën gaa yi rawoon te bëgg a jiitu ña rawoon ñépp dafay not bakkanam ku not bakkan noti kemam te moona képp ku bakkanam not lee ñu gis bépp kemam not ko ba far war ci kawam notal bakkan jàpp ko war moo gën di jëndi fas di war murit du jëndi fas di war bakkan balay defu fasam ku war fas mënul nga war ku war bakkan moo man nga war dëgg te moo jekk nga war moo mata yéemit nga waram bu topp mukk sa bakkan bu toppalit kenn bakkan yi yaar yëf day taxa bon ku ko bawul du jëm kanam koo xam ni yàlla daala tax mu ñëw fi yow defal la tax mu ñëw fi yow ku bala tax nit ñëw fi yow gàddu loram loo xam ni lii baaxul bayil ku def bayil ku ba bayil kuy waye dee kaway wayal lu dee fi sikk ba ca jëm te lépp luy ndigal defal ku def defal ku ba defal lii ma la wax boo ko bawul yàlla gërëm la nga gërëm yàlla ma am sunu sëriñ xaw te am lépp njariñ yàlla nu dugg ci njariñ saw a ki cant ak i ngërëm yàlla na am jëf ju rafet ak fan wu gudd wu rafet ak mujj gu yéemu gu rafet ak wér gu ànd ak i ngërëm yàlla na am jëf ju rafet ak fan wu gudd wu rafet ak mujj gu yéemu gu rafet ak wér gu ànd ak i ngërëm yàlla li muy def sotti na te lu mu dul def sotti na ku yóbbu xam ne noppi naa ci lu mu def ak lu mu ba yàlla li muy def sotti na te lu mu dul def sotti na ku yóbbu xam ne noppi na ci lu mu def ak lu mu ba loo xam ne atte nag amam ku bëgg ak amam mu am ku bëgg lu amam mu am ku yóbbu sant atte ba yow mii di sàkku àddina yaa gën a réere àddina nde doonte xam nga àddina nga wuti yàlla ba ko fi loo fi amit ñàkkati ko koo fi amit ñàkkati ko foo fi amit ñàkkati ko lu mat a bëgg néew fi ndegam Sulaymaan a fi jóg koo mën a gis dana fi jóg loo mën a gis dana fi jóg àddina pàkk lay defi yonan ya ñëw na jóge fi yonan ba ñëw na jóge fi saaba ya ñëw na jóge fi ku nekk ñëw na jóge fi yàlla deful àddina kër def na ko nii tool ak i ker def ko nii ay tool ak i ker loo bëgg nag fàggoo ko fi fàggul ragal yàlla ku ne ba noppi fàggu yiwu ne te fàggu nag ngërëm lu ne ndax bala ngaa dem tono fi tono du ak jur gu bari tono du aw nit ñu bari tono du soxna yi bari tono di xam-xam ak jëfe foo gisatew yu jàpp ko foo seenatew ay sori ko sori gu biir te muslu ko kon lee nga gën fi kawe fi ku xam yiw te defu ko xam nga du tax mu làq ko ku xam waaye te bawu ko xam nga du tax mu mucc fi ku seeru luy jaayam di bëtam te joxewul nag lu njëgam seeru ko fëcc ko ndaxam dara lu dul loraati fi ku seeru luy jaay ak bëtam te joxewul nag lu njëgam seeru ko fëcc ko ndaxam dara lu dul loraati fi njëriñ dafay wékkee di jaay muccit dafay wékkee di jaay ku def yiw bàyyi lu aay jënd na yépp lii jafe njëriñu moo jëkk a jafe daanaka moo gën a jafe lépp lu ne faa moo jafe ngir moo di doomi xam jafe te xam jëfee gën a jafe lu dee fi wax ni moo jafe àddina fab ci xam jëfee te lu ko mooy nga ba ko fa te xam jëfee gën a jafe lu dee fi wax ni moo jafe àddina fab ci xam jëfee te lu ko mooy nga ba ko fa lu yàq rek a mata ba ne luy defar matu la ba ku nga ci yow te du la ba lu koy defar matu la ba ku la ne jàpp ma bu wér te ni la yóbbu ma bu wér lay teem dem na nga ko yor te bu ko seetaanaka ba am nga murit am sëriñ defal sëriñ digle njariñ sëriñ dafay defi njariñ di ko digal taalube ba awal ndigal awlu ndigal di jéem a jub jéem a jubal ab sër bi day jofi jofal kenn bañ a des ci àll ba bul bàyyi kenn ci sa goom jarak ku koy ba ci sa goom defu ko ci sa goo ki góom sëriñ du wàcc donga ba wéel te yóbbu sa murit bul bàyyi mukk sa murit ndara nga xam ne sa murit dani wéel te far ma ba kolo ni nang nanga ma ba dalal di dem te far ko ba ngir nit bu bëggee ku ko ba ku ko bëwul def musiba luy waralug def musiba loola le mat naa daldi ba ab lar bu nee na nga ma ba bokkate jàpp sang ba sang ba nag bu ko ba yow ku la ba it bu ko ba yow lu mën a xew jàpp ko yow tey wut xolam bu sedd ba bu sa murit deful la war loru la yow boppam la lor silmaxa buy mbalaka wër ñu ba ko faw ak dokk ba sab sang yow na nga ko jox ku la joxul na nga ko jox ku la joxit na nga ko jox te bu ko fàtte bu ko ba bépp murit joxee ca war bépp sëriñ joxe ca war sëriñ a xam nag la ko war bul def lu dul jox ko te ba yàlla bu aw képp ayib yàlla bu ab kémb ayib yàlla bu kuy jëfit ayib yàlla bu ay jëfam ayib yàlla bu aw képp ayib yàlla bu ab kémb ayib yàlla bu kuy jëfit ayib yàlla bu ay jëfam ayib yàlla bu tey jile ayib yàlla bu ëllëgit ayib yàlla nu mucc nun ayib sunuy jëfit mucc ayib yàlla nu raw jépp ayib te fas lu raw jépp ayib wax jëpp lu raw jëpp ayib jot ci lu raw jëpp ayib yal nañu suula suula suul suñuy ayib fu sori lool ba kenn dootu xool a xool ba gis ci nun mukk ayib yal nañu dàq dàq lool suñuy tawat ñu sori lool te jox nu may yu bari lool yu àndul ak seen ak kayib yal na mu sant sant lool yàlla mu santatinu lool gërëm nu yokkatinu lool yokku far jëpp ayib sëriñ bi sant naa ko lool yal na ko yàlla sant lool moom it mu sant nooti lool cant gu fekk jëpp ayib yal na nu boole yërëmaat jéggal nu fas nu gërëmaat boole nu fa wit xoramaat dox sunu dégg ki ayib du ñëpp yal na nu mayaat seddu xol ak tóolal xayaat nuy dox dina àttak a xayaat sori tawat sori ayib yal na nu boole safalaat te boole xol yi seralaat guy yi baxel yépp dalaat mu musle ciw ay ak ayib yal na nu boole jafalaat bu wér te boole nu walaat ba noppi boole nu falaat palgu nu teeji ci ayib yal na nu boole bégalaat yal na nu boole jagalaat yal na nu boole tegalaat buur ak bor ak lor ak ayib yal na nu boole dëggalaat yal na nu boole jagalaat yal na nu boole tegalaat buur ak bor ak lor ak ayib jox nu lu gën loonu joxoon lu gën ci nun loonu joxoon lu nu gënal loonu joxoon boole ci lii nga nu joxoon jox nu ñu gën ñoonu joxoon ñu gën ci nun ñoonu joxoon ñu nu gënal ñoonu joxoon boole ci ñii nga nu joxoon jox nu fu gën foo nu joxoon fu gën ci nun foo nu joxoon fu nu gënal foo nu joxoon boole ci fii nga nu joxoon jox nu ñu gën ñoonu joxoon boole ci ñii nga nu joxoon jox nu ñu gën yoonu joxoon boole ci yii nga nu joxoon yokkal nu yiw woonu joxoon bul wàññi yiw woonu joxoon banoo ko yiw woonu joxoon te dolli yiw woonu joxoon bul wàññi yiw wi nga nu jox yokk ko yow ki nu ko jox saxal ko yow ki nu ko jox dàkkal njariñ loonu joxoon yal na mu sax ci mbam mu sax te sax ci yërmande ju sax sax ci rafet njortu gu sax sax ci ndigal loonu joxoon li nga nu jox ci sutura ak barke yokku ci dara te bu ci wàññeeti dara deenu ërëg loonu joxoon deenu ërëg loonu joxoon deenu ñag ak loonu joxoon deenu yar ak loonu joxoon ci daraja yi ña nga joxoon ër nu ci barkeb koo ëroon yor nu ci barkeb koo yoroon ñag nu ci barkeb koo ñagoon jox nu ci barkeb koo joxoon yiwu nu ñàkk jox nu ko woonu xañit delloo nu ko ba noppi nag yoral nu ko bul nangu lëf loonu joxoon musal nu fàww ci loru te may nu fawuk defaru ci daraja yi ña defaru ku ma sa am yaa ko joxoon musal nu fawu ci loru te may nu fawuk defaru ci daraja yi ña defaru ku ma sa am yaa ko joxoon yow yaa di kenn ku dee nga donnu te kat du kenn la xala donnu yow yaa di kenn ku dee nga donnu te kat du kenn la xala donnu mboolem ña donnu ak ña ñu donnu ngay boole donnu dellu ni jonnu yaa jëkk ñëpp yaa mujj ñëpp yaa ëpp lépp yemu la fenn yow daala dul jeex te am lu dul jeex may na lu dul jeex ak dëbb bënn yaa mata bënn yaa naa la bënn am la nga tànn ak la ma tànn yaa mën a làqu te ne fu làqu ku ne fu làqu ndéem du senn muñal kenn li ngay muñ la saw yiw di day li ngay sàkku ci muñ nga koy làq kët muñal kem li ngay muñ la saw yiw di day li ngay sàkku ci muñ nga koy làq kët dangay sàkku barkeeku yiw ak ngërëm te yii nag muñuy seeni ndey bul tawat fa ñuy ruuja tool ak fa ñuy tibbe sax li fi muñ fi diggante bi raw na bët bu ñuy góob a kay gar ña daa bay di muñ ña ngay ree kafab seeni mbay nag di fat bu nee faa ko daa bay na ñëw fab ngaram nga bëggoo na am ngar lu yéemoo xarit bu nee faa ko daa jëf na jël sig payam nga bëggoo na am jëf ju kenn dul xebat ku muñ muñ guréy faw am fay guréy muñal muñ guréy ndax nga am say mébét ku jóg jëm ci ab dëkk gis am ngërëm la tey dal di aw wii njagam def na nit mu ñuy ngir ma jëm nag ca dëkkum njariñ xanaa dëkk boobee nga jëm léegi it bu ñuy fay ku nekkub liggéeyam ëllëg ñu ñee gaaya daa muñ lu diis ak lorit te loo man di gis ci lor ak tiisi xol bu ñuy yuuxu ngay sant lii jara ko it bu ñuy yuuxu ëllëg ña daa dëkke muñ ci dunyaa nga firdaw si lii xam ko kët bu ñuy yuuxu ëllëg ña daa dëkke muñ ci dunyaa nga firdaw si lii xam ko kët maroon naa nga bannal ma teenub cobeel ma xiifoon nga far jox ma daggay ngëneel maroon naa nga bënnal ma teenub cobeel ma xiifoon nga far jox ma daggay ngëneel ma ñàkkoon nga jébbal ma mbooloo kiif ma réeroon nga xëy may ma xam-xam bu teew ma soofan nga far def ma géejug xoram gu saf sàpp seexal ma jox may meteel gërëm naa la nag def ma ab santkat bu lay sant kay way ci barkeb jabeel samay yëf du jee ndaxte say yëf du jee bu ab sang dul jeele jaamam du jeel damay sant ngir yaama dakkul lu bon bu wér ak ku bon bakke yow laa fi neel ku lay wan cofeelam ma wan koy gërëm ku lay wan mbañeelam ma wan koy mbañeel ku lay sopp dundam gajag dee gajag ku lay bañ bu dee dal di dem naari biir ku dul yow pexeem ak soloom ak ndiram jubul sam pexee jub te yaa nuy fexeel yërëm nooti dolleeti nuy mbég yu rëy yu tooyal sunuy xol te may nun noteel bu sii nag bawal ak kajoor ak jolof ñëwan dal di feesal te doo xaaja jeel faab lii xinam han jamihil waraa muridan shakooran bu doy lay ngëneel faab lii xinam han jamihil waraa muridan shakooran bu doy lay ngëneel wutal puutar ak bal te wut ak fital defab lépp nag jox ko yow dan na bi wutal puutar ak bal te wut ak fital defab lépp nag jox ko yow dan na bi te bul dof ba am puutar ak bal ba tax nga fab sag fital naa damay jóg rëbi ku dul gis lu ko ndel la kiy wal di faj bu teqee du jam lëf lu dul àll bi fabal xol bi fab jur gi fab dagg ji te fab kër gi ngir yàlla jox sang bi te gëm yàlla gëm sab sëriñ gëm gu rëy te am ak rafet njort tey woolu ba te gëm yàlla gëm sab sëriñ gëm gu rëy te am ak rafet njort tey woolu ba rafet njort ak wóolu yi yaari yëf laab teelu bay fab te jóg daw dabe melal yow ni waajuy faraasoo ka tax di wollee ka bay tey rafet njortu ba te bul def ku yàkkamti koo xam ni kii bu dee tax di wax kañ bisub ñamte ba te bul def yitam natt moo xam ni mii bu dee ruuji naa kañ bisub dëgg ba awal ngir mate ijaaba kay waaxu yow di wéy rekk kon lee nga gis dëkk ba awal ngir mate ijaaba kay waaxu yow di wéy rekk kon lee nga gis dëkk ba te bul geesu bul jàdd it bul taxaw te yéggoo moyul dëgg yow gàkk ba yorof lëtteekoo di pakkub ku jóg ni day toppi sangam soril pakk ba ku yor soxna yor fas yoraaley alal teekoo na ngay yegg yow dëkk ba fabal lépp jox sab sëriñ yow tiwi wayab toy yi kon lee nga jóg gott ba ku jóg soobu manding bu diisee du dem te manding nga soobu jógal gott bi ku yëggul du mus kat la waa kër ga mus dawal yëgg waa ji ba mus nekk ba lu jar dëgg ngay dund yow mii ba dee te koo toll nee faa la baadoola bi nangul yow ba am gépp pal mbaa nga dee ba kuy jaale naa ay laru bi yàlla bi na ngay dund mbaa sax nga dee léegi far te bul dëkk yow mii fi diggante bi ku baaxul ku naa ma ngay dund fen ku naa dee na yit fen ci sa dund bi njegam bëgg ngaa yegg buubal sa kër te fab lépp jox ban ba kii dann bi njegam bëgg ngaa yegg buubal sa kër te fab lépp jox ban ba kii dann bi sëriñ bee ma jox man tiraa ngaa ki mbég fu may jëm tiraa ngaa ki mbég topp ma sëriñ bee ma jox man tiraanga ki mbég fu may jëm tiraanga ki mbég topp ma bu may jóg tiraanga ki mbég dal di jóg bari cant xam naa ne man war na ma ku tàggoo ko ay nag te lëkkoo ko yiw bu santul boroomam bu wér bett ma ku am wér akub dund ak ngir mu jub mayam gaa nga koy wax jógal sant ma te yii yépp am naa ko man Baabakar tawat man banaa la yawit nag ba ma te yow cant mi gën tawat gën gu wér asal jàpp naa la yawit jàpp ma tawat maa ngi lay daw yawit dee ma daw te kat maa ngi lay muslu it muslu ma te it cant laa jàpp def ko xarit tawat dëddu naa la yawit dëddu ma tawat léegi tàggoo nanu ngir wéyal te bul dellu seeti fi man fàtte ma te bul may ganee te ka dox saa barab te foo man di jublooti man teggi ma bu sab tànk jam mukk saa genn kër na ngay moytu saa kër ma nit moytu ma moyul saa kër ak saa yaram ak samab murit faw nag yow tawat moytu ma laxas naa la ab tànk yow cant mii te man jublu naa la yawit jublu ma bu may jekki-jekkil fi man faw yow bu may jóg-jógal faw yit topp ma bu may jekki-jekkil fi man faw yow bu may jóg-jógal faw yit topp ma li tax man ma jaaxal samay kem dama demul woon ba ñuy dem te far jiitu leen li tax man ma jaaxal samay kem dama demul woon ba ñuy dem te far jiitu leen dañoo jóg te njël man ma xëy man di muñ ba gaalum ndigal ñëw ma war romb leen ñu far mujj may dox di santoo kadab te kenn seenatul lëf ci man waaru leen ku daa sant aw nit di waaxoo ko daw ñu far mujj koy sant ndax yéemu leen sëriñ bii du maasum ñi teew ak ñi wéy ñi teew ak ñi wéy ñépp semmal na leen sëriñ bii du maasum ñi teew ak ñi wéy ñi teew ak ñi wéy ñépp semmal na leen ku koy wekk mbir am ñu lay wekk mbir du leb loo ko mus xam murit sant leen du war jëm waayam mu ñal jëm ëllëg da koy dal di jox dik ko ëllëg yeneen dañuy ñee ko kam tey bu ëllëg ñëwee ñu bar gën ko faañee murit seere leen te sax ñam wu ñuy togg woo xam ni day xaloo yéemu buy bax ci saw dégg leen li nuy am ci kër gi la nuy am ca kër gëlee koy xaloo gën murit waaxu leen ku jóg soo bu am ngir te sëf ndox mu doy aku ñam layam jeena kët lagg leen ku xam ngir xamub dëkk yor yóbbalam na daw nag ba jot ay kemam jiitu leen ku am ngir xamub dëkk yor yóbbalam na daw nag ba jot ay gemam jiitu leen ndaxam jaay may sii sa kay dox di bañ li ñuy bañ ci man mii du man mii ko def ndaxam jaay may sii sa kay dox di bañ li ñuy bañ ci man mii du man mii ko def li ñuy bañ sëriñ bee ko fab def ci man ndemam lottu naa sax ci def lenn lëf sëriñ bee ne cas ay yëfam def ci man yëfam rekk laa yor ndeman aw ma yëf dañuy gat ngirum ndox di bay ngir dugub mu jox mag dex ak ràcc mbég far ko sif dañuy jàng xam-xam di wut ay dërëm mu jox may dërëm sol ma xam-xam ba faf dañuy wut ngoroo kii goroo kii jabar mu yot may goroo kii jabar lii du kaf dañuy jënd akay jur mu ñëw far ni cas lañuy jur akay jënd jébbal ma tëb bileeb dan yombul te moo dàq jam kemam yépp buy téq ci dal di saf bu dee téq lor dem njariñ dal di ñëw ngërëm yegg ci xol sedd kii baaxi jëf du mooy ay moroomam te nag am xelam lu dañ mooy boroomam ragal naa suruf dafay dimbalee kay fabee kay jariñ li may ñépp ab yar di diglee ka def dafay wattu boppam di wattuy kemam du fiiree ka jannee du wan kenn laf reyug ban du tee man ma jóg jëm ci yow ndeyow dong laa am ci ab jublukaay rëyut bon du tee man ma jóg jëm ci yow ndeyow dong laa am ci ab jublukaay barib tër du tee kay ma jóg jëm ci dex di yaakaara set nag bëggën jépp waay amul gàkk boo xam ni mën naa waral ma jóg mooy la ngir yaa di saa bootukaay bu may réer a kay tax akay bon jëfit samay njortu ñaawul ci yow ngeen ji baay ñi baax ak ñi bon seeni jëf yaa ko yor te yaa gën ci ñoomi ndey ak ay nijaay danga xam ku dul man te man aw ma nag ku dul yow faral def ma ab wuutukaay te yaatal ma bënnal ma may ngeen ji dex budul ngii sa kay fer akay jeeka daay te feetal ma ak kee gu gën gépp kee bu saf yàlla saf ñépp may fab di jaay ba mboolem ku ñuy ñee kaxal seeta ñee ñi far bokk nuy ñee ci bépp jataay ku ñuy topp ñee moo ku cay topp ñee ñeney topp nuy ëpp ñéppi nga ñaay kabal lii nu wax may nu fawwa ngërëm ngirug baax akub tapp lay roy du aay tabeekub yar ak yërmandeekub lewet nga fab xeexe yow mii ba not jépp waay li lee tax ma far dëddu ndaw dëddu mag te jëm nag ci yow def la ab jublukaay li lee tax ma far dëddu ndaw dëddu mag te jëm nag ci yow def la ab jublukaay ndaxam dag bu dul dox fa dee fii xare te naa bëgg naag pal dafay saydu nit ndaxam dag bu dul dox fa dee fii xare te naa bëgg naag pal dafay saydu nit bu dag yépp booloo fanaanee fital te yendoo fital nag ba sangoo deret nga gis muy fanaanee nelaw bay xaram di yendoo larax nag te rëy ay mébét bu dee fee bégal gaaya jam-jam ya wër mu dem fay xuloo kay jaloo kay tawat bilab dag yëgul ndax ni tuubee ko war yeyoogul tawat nag yeyoogul xulit ndafam gee ko dal te tawat koo ko war te jóg tuubi ay dal na dof buy texet torox naa te rus man mi gis saa ayib na may def ba man saa ayib jépp set bu fekkoon ni man naa faxas ay ayib ma fab saa ayib ji faxas man mu set faxaskat bi yow mi faxas ay ayib lu tee nga faxas saa ayib ji mu set te saa soo yayoo fapp saa lépp set te jag faw may waaju léppam rafet yërëm maa yërëm man jubal maa jubal te may nuy ngërëm nag ba nuy ngën gi nit faral nuy ayib nun sagal nuy ayib te may nuy ngërëm nag ba nuy ngën gi nit sëriñ baa ngi ji ni jox na lay yëf yu doy yeyootoo lu dul jóg liggéeyal ko tey sëriñ baa ngi nii jox na lay yëf yu doy yeyootoo lu dul jóg liggéeyal ko tey ku daa bay ne ab xiifatee mbay mi jag bu koy dab wëreetee mu jóg dal di bay ba ngay xiifa kay mar nga am lay wujub ndetey jii nga reggee amul wenn lay lu dul fab sa gob bii di doomal di sol te ak dund moo dib nawet lee mu wéy ku am sam nawet nag di farloo ka bay bu nooree nga ree kon te bëgg mbëgg mu rëy ku sanniw sa sam feete sanniw sa sam bu dikkee fa yow mii bayal bul koroy te koo seeru kët am na aw sa suuréy wudul jeete deewul wayal gépp way na bay it tërëy yow te sa farlu sax lu dul lii du may kenn ndambaate way murit boo bëggee raw lu bon jot ngërëm moyul denc soxnaa ka denc alal murit boo bëggee raw lu bon jot ngërëm moyul denc soxnaa ka denc alal na ngay jajjakay am te bul gas di jal fi sag wet ku koy def du gis ndox asal te kuy denc ak jur ma ngay gas di jal na ngay farlu cib gas te loo gas anal na ngay gas te loo gas fabal génn yow lu ñëw fab ko jox sab sëriñ far mu jël sëriñ moo di am ceebaloo tax mu sax texal lépp loo bëgg tey bay di sol te bul sàgganam ceeba farlul te bay ku sàggan ci am ceeba yalwaani njël li sàggan ba tey kem digoo bee ka gar akay dëgg ngay mos lu lii kët gënul jógal léegi yow mi lebal sab sëriñ lu seddub xolam kon ñu seddal sa xol bàyyil yépp ak ñépp jëm ci mbiram ku jóg soobu ngir yépp dem til xamal ku teg ñaari tànkam ci kaw yaari ngir bu bëggee demit lottu ci dem yëgal defal tab xol ak sam xel ak sag xalam ci tab sang lii lay mayub dem fabal tegal say mbirit ak sa jur gépp cib loxoomit teyam képp doy loo ndigal tegal say mbirit ak sa jur gépp cib loxoomit teyam képp doy loo ndigal te bul jàll bul jàlle la sab sëriñ yarul am murit day yaroo kay jubal bu sab xol bu say bët di gis lëf lu dul sa jëmmi sëriñ ngir mi lee jub awal na say tànk booloo ci kaw menn ngir njëgam bëgg ngaa yegg foo yeggagul sa wax jépp nay jëm ci sab sang yow sa jëf jëm ci moom ak sa mboolem alal ndaxam gaa yi man maa ma neekum murit bu nangoo ma teg lëf bu gàntoo ma ba ndaxam gaa yi man maa ma neekum murit bu nangoo ma teg lëf bu gàntoo ma ba bu del teete tuubit moyam gam moyam ma jéggal ko dal koy joxañ àll ba bu dikkul defar jàpp ak njaamburam ma ñaanal ko aw yiwudul jeete ba bu dikkee te jox ma liggéeyam ma fab liggéeyam ba jox ban ba kii sang bi damay wan murit ngir ma gën mépp ngir bu jekkee ma wey man ba jot dëkk ba damay wan murit ngir ma gën mépp ngir bu jekkee ma wey man ba jot dëkk ba bu jekkee du tax nuy béjoo kay xuloo béjoo kay xuloo lii du may kenn ba sëriñ buy xuloo ko murit du sëriñ sëriñ day defar am murit mbaamu ba murit buy xuloo ko sëriñ nag jubul njegam yow mënoo koo jubal far ko ba murit buy xuloo ko sëriñ nag jubul njegam yow mënoo koo jubal far ko ba sëriñ boo bëggee man ma yóbbaale la na ngay wattu kon kenn yóbbaale la te nit daana ànd ak ma nit bëgg a dem bu yàggee mu naa man ma daw randu la ndaw ak mag ku ne bëgg a dem waande nag ku wéy yombatul yiy dogit yomb la damay dem damay dem damay dem ku dem ma dem man ku dul dem ma dem man bala ku bëggul lu dul yàlla ak ban ba mi du sikkal samay mbir asal dëgg la ku bëggul lu dul aw ngirum ban ba mi di wut yàlla kookee sama soppe la ndegam bëgg ngaat lëf lu dul dem jógal nu dem ngir demay mbir ci lépp àll la na ngay wéy te boo sonnatee noppulul te boo noppuloo dal di wéy noonu la na ngay def li ngay man ba nag loo mënul te way nag ba kuy lim ña way jëkk la na ngay julli tey woor akay maandu yow di daw lépp loo xam ne mooy yàlla la na ngay may ndaw ak népp mag yar bu rëy njëgam bëgg nga yow képp nit fonk la sëriñ jaane sab dénk ngi yaa ci des fabal boo fa bee day nu yóbbaale la mu jóg way fi man Baabakar way wujub sëriñ bee ci bokkam ak i teelu beem ma jóg way fi man Baabakar way wujub sëriñ bee ci bokkam ak i teelu beem sëriñ bee ci bokkam dañoo mat di way te ay taalu béemit dañoo mat di yéem defal leeni way war na mboolem ku man te man mii ko santaane kat maa ngi jéem sëriñ bee yayoo way wu saf ndaxte moo defar jaambur ak mbokk ngir yërmandeem ba mbokkam mu jóg mel ni ab jant jóg te ab taalu béemit ku koy gis diraam ndax menn mbokkam durus benn bis te ab taalu bee nit du tàggoo ki jaam te soo seeru mbokkam mu yor ak njëgam ku gis taalu bee nit mu yor tedd ngaam defar naw nitam jenn waayam desul junee baajagul kii teral nay fereem mosal naw nitam ñam wu gën wépp ñam ba moo tax ña daa dem fa buntam ba faam magum ban ba moo gis ma ngaa ku magam gonek ban ba goo gis ma ngaa kii goneem njegam yow da ngay topp toppal ma kii ku def lëf lu dul topp kii yàqireem dafay sàkku jib sang mooy ban ba mii te koo gis mu mooy ko nga gis tuskareem ku koy may akay romb akay wéy du man damay wut ngëneelam di fas wëllëreem ku koy mooy akay romb akay wéy du man damay wut ngëneelam di fas wëllëreem ba max naa ko saa ñépp ak seeni jëf te saa lépp fam naa ko tàbbal jibaam te saa lépp ngi yal na fab lépp jël te wuutal ma jëmmam jamay sol daraam te yàllante yàllante yàllante man ma diw karbatam mbaa ma dib teelu béem te yàllante yàllante yàllante man ma diw karbatam mbaa ma dib teelu béem bu tëngee nga daw yow bu seddee nga ñëw kalay ñàkk ñàkkul kalay am amul bu tàngee nga daw yow bu seddee nga ñëw kalay ñàkk ñàkkul kalay am amul te kuy dëkk ci sa ñëw du nit kay merit ci sa dem du nit ngir wayoo doo kumal kajar bég du yow mi kajar mer du yow wayoo fenn moo tax jaroolëf xamal bu nee war waras lëf nga fax dal di daw bu nee nux nuxit lëf nga ñëw cam demal dem ak ñàkk dem dund ak dee ci yam ci yow loo ci def doy na buuray dogal lu am moo ko def moo jubal gaaya jub nde moo def ci ñoom ak wayek aw ndigal lu muy def ci nun lépp yal nay lu gën lu dal xel seral xol lu jub luy dëgal wéyal yow te muñ ndax sa der bii rafet ku sa der rafet jar nga njëg goo jërul ku way deng muñ ñépp àttan ci yow lu dul àpp ci yiw te way gaa waral amal jom amal ngor amal bopp lëf te def mbañ wuru si yàlla boo bon bonal bu nag baaxayam képp ngir loo ca gis dafay walle wallee lu yiw gën gënal malaanum kerug pénc ngi nag ku for bu bëggee na fab dal di sangoo te jël malaanum kerug pénc ngi nag ku for bu bëggee na fab dal di sangoo te jël kulay romba kay wéy te lor ak njariñ du tukkee ba moom it lu muy wàñña xam kulay romba kay wéy te lor ak njariñ du tukkee ba moom it lu muy wàñña xam ku bëggul lu dul ndox te jóg teg gi dex lorul dex du tee dex ni muutan ndoxam ku sangam fegal lor te jox koy njariñ ku jóg romb koy wéy du tee muy gërëm ku ràccub añam sit ca soowam mu jub di bas boo ko xaarul du tàngub xolam bu sab jant benkee ku lay lëndëmal bu say may ñëwee dëgg kuy tee nga am ku sab sang yaatal ku lay deeti tas ku sab sang may ndam ku lay xañ sa ndam ku sab sang yaatal ku lay deeti tas ku sab sang may ndam ku lay xañ sa ndam murit sax bu sangam safoo ay mbiram ndaxam kenn du mën lëf ci soofal mbiram murit diggam ak sang baadiw sasam njagam jag na kenn mën la yàqub deram bu diggante sang ak laram nee na ñax lu bon jóg fa saytaana it jóg fa dem sum sang nun diggam ak nun na jag te wir leere nib seetu gën ab dërëm xolam ak sunu xol na def benn xol sunuy jëmm def jenn nuy ab gojam bu dul dog bu jot sëkkiteenum mbégam nu far nag di tàbbee ka génney mbégam bu dul dog bu jot sëkkiteenum mbégam nu far nag di tàbbee ka génney mbégam bakkan leenu tee dem dekon leenu dem doganteeki bakkan ba tey ñépp dem bakkan yeenu tee dem ndekon leenu dem doganteeki bakkan ba tey ñépp dem ku jóg jëm ci aw yiw bakkan dal di jël mu far jekki saytaane def kob laram nanuy def nanuy def nanuy def baraw bakkan nii filee kay teree am ngërëm ndaxam kenn amul ndam ku dul waaju raw bakkan raw gu bir kooku moo làq ndam bariw nit akub xaalis ak taaxi kaw te moo moo bakkan lii du faj lëf ndaxam ku nii lii alal ak ku niiwul alal asal seeni bàmmee la xal seetayam ku am sax du def ay dërëm muy alal la muy def alal moo di sellug jëfam ku am it du fab nit di def wéttalam boroomam balay jàpp def wéttalam sëriñ baa ngi wootee kawaaru nitam akay digle ak tuuba ku jëm kanam jubal nay mbiram not na ay noonamit ñu ngi nag di sàkkoo jubal gaa yi gëm defar nam ngërëm pakk nekkul ngërëm koow am ngërëm doo tërëf doo gëlëm ku toppi waxam doo torax doo suruf ku xam jox ko say mbir te toppi waxam defar nag saxaaram ba dootul ayib ku war dal di raw ab kemam jot magam li muy digle koo xam ni kii danga ko def te sellal ka doo ñàkk ndam ak xoram li muy digle koo xam ni kii danga ko def te sellal ko doo ñàkk ndam ak xoram ku jóg dugg gaalu ndigal gii di wéy te génnul du woo loolu àggey ngërëm te tey laa fasoo dugg gaalu ndigal di wéy nag ba jot bépp teerum ngërëm te man dénk naa kat ginnaaw ak kanam sëriñ bii bu wér doy na nag maa ngi dem te man dénk naa kat ginnaaw ak kanam sëriñ bii bu wér doy na nag maa ngi dem jógal dëgg yow fekki buur ak ñoñam te bul des fi ñee ñiy féréw leeka daan lu baadoo la am am la fag fi tuuréy bu ko dagg bu bon dee gisit dal di daan ku nekkul di boorit na def ab dagam bu kenn dul féréw leeka rusuloo ka daan na ngay dëgg dëggi murit mbaate ngay sëriñ dëgg nag buy fajal ñéppi daan ku lay bàccating ndomboo ka sakku ci yow bëre demal wooyi ndaanaana ngëneelam te dem tëri ku lay yàbbu ndaanaana ngëneelam ñëwee mu deñ baset wi ci diglul tuuti léegi sa ndam bari lu jaadaana kay déesante bari yeeka koo ragal bu dee yegg si mbër moo seeru day rët ba daw sori dafay mel ni booba takk takk ci biiri mbër labal fi ginnaawam nekk fa mboolem ku lay mere ku lay raasa kay wut yow na lay fekk dig ronam ngaaw ndigalam tey sant kay daw lu muy tere dafay kenn nit koo xam ni suuxal na képp nit te jenn jëfam suuxal na jëf yépp moo gore ngoram gi la jiitoo gaa yi am ngor te sell ngor bu seeroo ko ñuy sànnee ka sikkal mu dem fori du yàq du yàqal kenn kuy yàq muy defar bu ñuy nelawit muy wër këram gépp a kay tari tabarkeematee nit ñépp xëy benn bokk bon te jëm sawaray reccoo ka yuuxoo ka tertari fajal nanu lor ak aajo ñeewunu kenn tey te ñépp a ngi nii ñee ngir danoo sori luy lore soree nanu xaw ak lor te sax ci mbég ak njariñ ñu dàkkul nu mboolem luy waral nit di férféri sunuy solo ak mboolem sunuy pexe xëy na jag ci barkeb ki ñëw ub jépp làmb ba dem tëri sunuy solo ak mboolem sunuy pexe xëy na jag ci barkeb ki ñëw ub jépp